rang muy gaaw waaw gars yi maa ngi leen di ziar di bu baax bàyyi ni nga jàmm naka àdduna bi ba lépp a ngi kuul waaw gars dafa dugaloon wax ci Wally Seck ma wax gars ñu signalé ko signalé ngi jooy de ba tey mi ngi yónnee ay audio xoolal xool li ma ko wax xoolal bu gaaw bi la wala gaay kat ndey compte bi ah, bu gaaw bi la wala kenn gisatul compte bi Wally Seck kenn du ko laal face gars yi Facebook bi moo ci des nan Dakar ndeyu Facebook bi maa ngi ñëw dugal lien bi waaw da ngay tooñ ay Wally Seck instant bi Kaali mi ngi jooy ci vocal yi mi ngi jooy déglul déglul. waaw léegi gars yi bu ñu capté nday compte bi après. vidéo bi du mu ngi YouTube. <laughs> mi ngi YouTube la bi du mooy lien bu yàgg bi rek mooy ban ko dugalee bu yàgg bi YouTube la ko jëlee woon. est-ce que compte bi ba ngeen. ñoom moo gën da leen di liggéeyloo te amuñu expérience. Facebook bi laay ñëw daqaar ndeyam balaa guddi gaa yi kat ndeyi Facebook bi maanaam réseau plateforme mu yëpp ay dem YouTube bi moom dem na kenn waxatu ko YouTube ba dem na TikTok bi kat na ndeyam tey Facebook bi maa ngi dugal ko ñu dëgg ndeyi Facebook bi Wally Seck ku ko laal ñu kat sa ndey Wally Seck boo ko laalee lu ma danga yow danga ay Wally Seck boo ko laalee sa affaire day yàqu soo laalee Wally Seck sa dara du baax fi mu toll nii TikTok mi ngi nii ngeen di gis nii ma ne ko daqaar na ndeyam mi ngi nii. katt na ndeyi Facebook bi amul coow TikTok bi katt na ndeyam gars yi Facebook moo ci des kaale ngi nii katt na ndeyi TikTok bi Facebook moo ci des ñu daqaat ndeyam plateforme yi jeex doomu xaj góor jigéen yu mel na yéen ah nekk Europe di liggéey moo gën nekk Amérique di leen sant ngeen di dugal di wax ci Wally Seck affaire yi ñàkk fayda la sax nit da am ful la sa bopp avocat yi ne fii di kat seen nday xaalis tax ngeen ñapp nday di utiliser seen plateforme naan da ngeen di kii Wally Seck ko def ma daqaar sa nday kaali mi ngi jooy de kaalee ngi jooy rek déglu leen ko day jooy day jooy nii déglu leen vocal ma ko yónnee ak li ma wax instant bi mi ngi jooy day jooy day jooy déglu leen daa waxoon du ko din déglu wala boog doo dëmm da ngay dëmm dëmmul sax Facebook bi laay ñëw nii daqaar ndayam nii nii xam nga TikTok bi katt na ndayam Facebook bi laay ñëw teppi na fal ndayam léegi léegi may ma tuuti rek. amoo expérience bu ñàkkul ndeyam naan da ngay tooñ waaye. déglu leen kaal yi déglu leen ko. waa léegi gars yi bu ñu capté nday compte bi après video bi du mu ngi YouTube ah vidéo bi du mu ngi YouTube et après est-ce que compte bi moo may jox xaalis est-ce que compte bi ba ngeen ko dindee wala ngeen signalé ko ba ngeen ko signalé est-ce que signalé nañu sama bakkan est que tëj nañ ko xam ngay góor jigéen ngeen. xam nga bëgg ngeen ne kii day xeex góor jigéen moom dañuy supprimer compte loolu du sama problème yow mal xiyaam <laughs> affaire yi leer na xaalisu góor jigéen daganul <laughs> bi nag fa la neex yàlla mu ngi gis yonente mu ngi ay góor jigéen ñoo leen di jox xaalis ngeen di téye te jigéen ngeen yow mal xiyaam lay neex seen àdduna caaxaan leen fi nekk leen di fi compte bi buñ ko tëjee it heureusement sama baxan tëjuñu ko mën naa ubbiwaat léegi beneen compte du compte ba maa bi yaa amul sax deux mois maanaam soixante et quelques mille abonnés sama compte YouTube bi keroog tëj nañ ko ubbi naa beneen bu bees am naa deux mille et quelques abonnés amul sax trois jours ma bowaat léegi compte TikTok def sama photo abonné dama toog di ne gars yi abonné abonné déedéet nit ñeemay gis di abonné booy man du ma yéen te it compte bi joxuma xaalis waaye nag kenn du laal jëlal jëlal bu mujj bi jëlal loolu la du YouTube du vidéo bi mu ngi foofu mu ngi ko teg si YouTube sénégalais bi commenté di saaga nday Wally Seck fii góor jigéen a koy jox man nga bëgg naan danga may yëpp moo tax du ma la tontu sax xaw ma sa jot xaw ma sa jot sénégalais yëpp xam nañ ne góor jigéen ngeen sénégalais ñoo ko. merci gars yi Liss Diop gars yi xam nga na lay def tey dama leen a bëgg tey dama kontaan tey dama leen a bëgg a may benn TikTok bu dal ci kanam mais fii laa koy dugal ci paas bi parce que damay dugal Capo Boss Adamo benn tey dugal fee dugal fee dugal fee parce que paas yi dañoo war a yéeg. fu nekk dama fa am ay nit comprendre nga noon la demee tey dama leen di may tiktok bu dal tey dama kontaan tey damay fecc xoolal raag bi jaggi jate git ki bax ki da cararar git git damay kat ndey tik ay gars yi photo bii nag signalement bi dugal naa ko ci capot boss Adama non pas bii beneen pass bi dem leen ngeen commentaire ci Adamo sa papa la xoolal yéen ñëpp dem leen ci commentaire yi ngeen bindi Kali Adamo sa papa la Kali Adamo ku dàq commentaire guddi yow laay fixé ku ci dàq commentaire kali Adama sa papa la ci signalement bi posté naa photo bi ci capo boss Adamo dugal naa ko fa capo boss Adamo laa ko dugal dem leen ngeen signaler kali Adama sa papa la maa ngi ñëw ñu jublu ci Facebook bi Dakar ndeyam tey dinaa leen may TikTok bu rafet am leen jàmm kontaan naa merci beaucoup gars yi jërë ngeen jëf vidéo bi sax dama koy dama koy enregistré bii day dugg maa ngi koy enregistré nii bu leen neexee ngeen commentaire ci gars merci beaucoup gars waxoon ne doo dindi vidéo dindi nga ko wala da bu gaaw bi la wala gaa yee katt nday compte bi ah bu gaaw bi la wala gaa yee katt nday bi kenn gisatul compte bi de wala boog doo dëmm da ngay dëmm dëmm sax Facebook bi laay ñëw nii daqaar ndayam nii nii xam nga TikTok bi katt na ndayam Facebook bi laay ñëw teppi la fal ndayam léegi léegi may ma tuuti rek amoo expérience di ñàpp ndayam naan da ngay tooñ waale ana compte bi léegi. waa léegi gars yi bu ñu kattee nday compte bi après vidéo bi du mu ngi YouTube ah. vidéo bi dama ngi YouTube et après est-ce que compte bi moo may jox xaalis est-ce que compte bi ba ngeen ko dindee wala ngeen signalé ko ba ngeen ko signale est-ce que signalé nañu sama bakkan est-ce que tëj nañ ko xam ngay ay góor jigéen ngeen xam nga ba ngeen ne kii day xeex góor jigéen moom dañuy supprimer compte loolu du sama problème yow mal xiyaam <laughs> affaire yi leer na xaalisu góor jigéen daganul yóbbul audio bi nag fu la neex yàlla mu ngi gis yonentam mu ngi gis ay góor jigéen ñoo leen di jox xaalis ngeen di téye yéen ñëpp ay góor jigéen ngeen yowmal xiyaam lay neex seen àdduna caaxaan leen fi nekk leen di foo compte bi buñ ko tëjee it heureusement sama baxan tëjuñu ko du dëgg mën naa ubbiwaat léegi beneen compte du compte boobu maa ko ubbi yaa amul sax deux mois ma am soixante et quelques mille abonnés sama compte YouTube bi keroog tëj nañ ko ubbi naa beneen bu bees am naa deux mille et quelques abonnés amul sax trois jours mën naa ubbiwaat léegi compte TikTok def sama photo gars yi abonné waat est que man dama toog di ne gars yi abonné abonné nit ñee may gis di abonné booy man du yéen te it compte bi joxuma xaalis du dëgg <laughs> danga baax rek naan ay gaay kii compte bi signalé signalé leen ba signalé seen tuunu nday xool ko yëg loolan la du YouTube du video bi mu ngi foofu ñu ngi ko teg si YouTube sénégalais bi commenté di saaga nday waali sek fii góor jigéen a koy jox xaalis man nga bëgg naan danga may yëpp moo tax du ma la tontu sax aw ma sax sa jot aw ma sa jot sénégalais yëpp xam nañ ay góor jigéen ngeen sénégalais yi ñoo ko xamal seen bopp da ngeen baax rek. salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi maa ngi doog a yeewu waxoon naa leen man Wally Seck ku ko laal rek damay jóg toj sa cottu ndey gis ngeen Kali fo moo gën moo koy fay xaalis moom lay liggéeyal xam naa moo ko sant mu jël vidéo Pambaay bi mu doon mayee xaalis Wally Seck mu dem dugal ko ci paasam dem bindu fa lii ba pare désactiver commentaire yi yaa ngi dégg ñàkk fay da weesuwul nga nekk France di liggéey sa ku nekk ba Amérique di la defloo ay plainte yaa ngi dégg di di la dugalloo ay nit pour nga leen di wax lu bon pour am ci xaalis yow ku tepp sa lëfal ndey nga kali sa tuulu ndey moo gën ñëpp a ko bàyyi Atlanta la dem ca xew ma fay 3000 euros ñaa xarañ loo teg ko ci taabal ji ak këccëb pour ñu sinaabal ko ñu ne ñoom du ñu jaay seen te pare nañ ci moom du ñu jaay seen ngor ndax xaalis te du ñu ko def mukk ba mu sant am a neex mu ñëw di di di xuloo ak ñaa xarañ loo ndara a xeex ak moom. ñëpp a ko daw xew ma dafa wéet ñëpp a ko daw Kali la sant li Kali dafa désactivé commentaire dem leen ngeen commentaire leen fi ngeen saagatuulu ndayam Wally sekk boo ko laay may kat sa nday booy xoola da nga ma bloqué woon bloqué waat ma man aw ma jot ay liw faramaaren liw faramaaren démb la mu fi dugg yónnee ma sa ñaari ojo mu ne ay yow yaa ne na ma saagaat yu kenn xamut naa ko jox numéro moo gét ma ne ko man du ko jox numéro moo gét ma ne ko nag bu ko jinne duggee mu ngi Sénégal mu saaga ma dootul saaga liw faramaaren xaw ma ko moo dugg fii ne ma yónnee ma sa ñaari audio mu ne da ngay def live nga saaga ko patati patata mu ne ma Kaliphone yow man yow laa kii ma ne ko Adama ngi nii ay audio ma ngi ni ma ko yónnee seen yi nga nekkee nekkuma si ay liiw farama ren xaw ma leneen boo yooyu ma seen jot toog si wala leneen di wax boobaa sénégalais man la ñuy saaga ndey sax boobaa ay liiw farama ren ñëw na fii di ma laaj ay numéro eh, kii ak saaga na la yow wax na lu ne aw ma jot bi quoi aw ma jot bi seen ay farama ren aw ma jot bi quoi bloqué nga ma continué nga bloqué ma aw yooyu nekkuma seen temps yooyu quoi aw ma jot bi li ngay wax wumatuma ay liw de li nga liñ la sant noonu pour nga def ko ci Wally Seck laa bëgg nga katt ko ndayam dindi loolooy wax ji ci boppam te balaa ngoone vidéo bi kali bëgg naa mu katt tuunu ndayam dañ foofu ay liw faramaane yooyu intéressé wu ma continuel saaga ba gannaaw suba booy sa saaga yii ah wàññiwu ma cent franc sa aar mooy saaga yow xam nga ko juddoo Dalifort yaroo Dalifort man saaga daf luy saaga saagal téeméeri at saagal téeméeri at booy liw bi audio naa ko wax naa ko li mu koy wax maa ngi xaar mu dugg sama 18. yow xam nga ne xam nga ne yéen yéen pour yéen ñëpp laay boole dëgg seen ndey moo gën moom xam na man maay kan doful yen lay yónni ak avocat bi mu leen di yónni parce que yéen seen mbir dama cee pare woon bu yàgg amoon sax jot di ci wax ndax xam naa ne ay dulkat ngeen tribunal ngeen di nekk di fotowu da ngeen xamul bu ngeen ñëwee fii dañuy dëgg seen fii almaa yi fii dañuy kat seen ndey ci nu mu gën a gaawee ci lu leer nag laa la wax nag li ma lay wax nii barki Serigne kere Si pare ci côté yëpp ngeen di ñëpp ndayam nekk foofu ñu leen di fay ngay monter ay vidéo dugal ay góor jigéen vidéo Wally Seck boobu da koy kat sa nday dindi ci nii wala ci naa da ngay dindi la fal man maa la ko wax nag cott ndayam nag waaw keneen lijjantiwuma ko mais Wally Seck moom bu dee ci leen lay dugal ngay martaat damay dëgg seen ndey yéen ñëpp